asalaamualeykum bokki jullit yi bokki taalibe yi nu yëkkati kàddu di ko jottali bokki murit yépp ak bokki bayfaal yépp kàddu gi nag mu ngi bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalif général du Baye Fall ñu fi nekkal maam Cheikh Ibra dafa wax ni <clears throat> dafa bëgg ñaar fukki fan ci weer wii nu jëm di alxemes dañuy ubbi yoon wi nga xam ne moo bàyyi ko woon ndakaaru jëm si Touba te sëñ Mamadou Mountakha di ko woote wax ko ko it ni wax bëgg na dong yëpp ak taalib yeeg dëkkandoo yeeg am ji jàmm yi yëpp ñu ñëw teerole si ko président mi nga xam ne mooy ubbi si yoon woowu mi ngi woote nag mboolem ku yaakaar Cheikh Ibra sëriñ baa ngi lay woo ndax noonu amul lu dul Cheikh Ibra te Cheikh Ibra amul dara lu dul sëriñ Touba te li mu bëgg ci sëriñ Touba <clears throat> mooy baatum digal bi ginnaaw baatum digal bi jóg na nag sëriñ bi wax ne bëgg na ku ko teerule ganam gi taxawule ko ci ubbital bis bii di yoon wi nga xam ne moo bàyyi ko Ndakaaru jëm si Touba bu sañoon ñëpp danañu ko teewe defe ko ni ko sëriñ bi bëggee te mu ànd ak yar ànd ak teggin ndax nit kat su fekkee dañuy awma lu dul lenn yaakaar ko su teewee fi kanamam war na faa wane melokaanu nit li mu bëgg jaral na ko kon bu sëriñ bi teew kenn di fa wane luy diroog lu ab yar ak taalibe loolu la sëriñ bi waxoon ni nañu ko jottali mbooloo mi ba ñëpp dégg ko rawati rawatina nag jaboot Cheikh Ibrahima gi nga xam ni ñoom <clears throat> seen lépp mooy sëriñ Tuubaa noonu amul lu sëriñ bi kon bu sañoon bu sëñ bi santaane la mu santaane noo ci jiitu te buñ ci jiitoot nu wone melokaanu kër giinu ne di kër Cheikh Ibra ab yar ak i teggin and ba ki sëriñ bi teelu ndax nit kat bu fekkee ne bi sa kilifa day teeru gan war ngaa fonk ka muy teeru ndax sa jëmbi kilifa ja tax nga nga di ko fonk leneen loo fa wane nag loolu tub yar luy teggin dafay mel ni defoo ko gan ga sa kilifa googee nga ko def kon sëñ bi nee na bis bii mooy alxebes tombeeg ñaar fukki fan ci weeru décembre na ñëpp teew foo ay mën a ne sëñ bi nee na woona la ci bis bi nga jëw teewal ko te ànd ak yar ànd ak teggin te déglu ndigal lu sëriñ bi digle ngeen ne loolu la sëriñ bi waxoon ne naa ko jottali bokki murit yi jottali ko suñu bokk yi nga xam ne ñooy bokki kër Cheikh Ibra yi ba lii nii ko sëriñ bi bëggee nu man ko nee defe ba la mu ci bëgg mu man ko ci am kon noo ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla yóbbu nu ci bis ba jàmm di ñaani sëñ Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi te wéral ko ci daraje maam Cheikh Ibrahima Fall maamam ju baax ja ak sëriñ Touba jërë ngeen jëf faatu